ñoo waral ñu sañ taxaw tey di wax ci rajo ñeneen xëy na taxaw di wax seen xalaat te dara du leen ci fekk loolu yépp nag euh, dañu ci euh, sekk waxtaan ak euh, Pape mbay nekk militant wu PIT Euh, du parti de l'indépendance et du travail depuis fin 1975 tey sëriñ bi nekk adjoint au maire de Grand Yoff euh, kon ñu mën a waxtaan ak moom ci démb waxtaan ak moom itam ci tey euh, sëñ bi Mbaye Pape ñu ngi lay nuyu am mbégte lool sëkk ak yow waxtaan bi ci démb ak tey ñu ngi lay fay Fatou di la sant di la gërëm invitation bi. Euh, ni ma ko junjee dañuy waxtaanee ay xew-xew yu am ci politique xëy na tey euh, fàtte nañu ko waaye am na njeexital ci euh, dund gi ñuy dundoo waaye itam ay nit yoo xam ni ñoom ñoo def jéego yooyu ku ci mel ni dem si yàlla Amath Dansokho nga xam ne ñu ngi ko doon rendre hommage barki Dembo njaay bi ñuy màggal 23 juin ku mel ni itam Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëy na sax ñun xamuñu leen waaye yow nga bokkoon ak ñoom làng gi mën ñoo tey leeralal taxawaay bi ñu amoon ngir ñu mën leen a fàttaliku fi may dooree mooy booy xool politique tey fi mu toll sa xel euh, lan lay daj yow mi fekkee démb xëy na bokkoon ci ci yenn xeex yi jëm toujours ci politique bi bon euh, vraiment baa ngi nuyu seen auditeurs yëpp di leen sant di leen gërëm ci opportunité bi ngeen ñu jox ñu mën a waxtaan ci lu soxal sunu réew tey boo dee xool politique bu fekkee da ko def démb li lay njëkk a frappé mooy perte de valeur waaye hmm. que nit ñi démb ñi ëppoon ci ñiy politique ak lu ñu noonoo woon amoon na ay valeurs yu structuré yoo xam ni moom moo jëng seen jëf ci politique seen pratique politique ba taxoon am na loo xam ni ci ñaawteef doonuñu fa woon mën a egg hmm. loolu defe naa ni képp koo xam ni danga doon politique demb wala même ku politique loon dem ngay xool tey ñi politique euh, ñi ci ëpp ni ñuy jëfe ba tax askan wi ñu ci bari duutuñu leen diglu loolu day nekk loo xam ni lu la frappé la beneen bi moom mooy ñàkk xam démb ndax lii ma wax nii sax ñàkk xam démb moom moo koy waral hmm. ndax euh, tey boo déggee nit ñuy wax da ngay defee ni xeex bi ñuy xeex pour Sénégal suqali pour Sénégal jëm kanam tey jii la commencé alors que ñi nga xam ni ñoom ñooy wax da ngay dégg ñoo xam ni dañuy politique taxaw wax ni politiciens yi ñoo yàq réew mi ñoom dañ leen war a seppi teg fële xëy na am na politiciens yoo xam ne war nañ leen seppi def fële mais nag waruñu fàtte aussi ni ñoom bu ñu manee loolu ñuy wax ñu taxaw ci rajo di ko wax wala ñu koy bind wala ñu taxaw ci meeting di ko wax ay nit ñu doon politique ñoo xeex sacrifié wu sacrifier seen njaboot tëdd ci kaso ñii ñu rey leen ci ñi ñu génne leen réew ñi seen carrière professionnel yàqu ci ba tax ñoom ñu mën a taxaw tey di wax c'est-à-dire que li ñuy wax lut pour les acquis démocratique ba mu commencé dafa yàgg te ñooña nga xam ni ñoom ñoo ko doon def am na ci ñoo xam ni ba fii ñu toll tey ñu ngi dund dans l'anonymat le plus total. a ah oui kenn xamu leen. ka mais wuti ñu ci dara demal Rufisque nga laaj kan mooy bala Ndiaye. Hmm. ñëwal fii Liberté 6 nga laaj kan moo Abdou Kane. Macky la guerre révolutionnaire bi PA yu doon envisagé commencé woon ko en 1965 Abdou Kane moom moo nekkoon dans le Ñombaatu mi ngi fi Sadio Camara bi nekkoon dans le Niokolo dans le Sénégal oriental. Mm. bi mu deewee léegi c'est quelques mois. c'était o l'appelait le commandant Alphonse il a écrit un livre sur le PAI et tant d'autres mm-hmm. xam ni en fait seen bakkan la ñu tegoon ci Sénégal jot boppam ci anam boo xam ni réew non seulement ci loxoy doomi réew mi lay nekk mais koomu réew mi doomi réew mi ñoo koy jariñoo ñoom seen bakkan lañ ci tegoon dem ba Cuba def fa formation militaire hmm. pour venir faire une guérilla au Sénégal. ah oui ah situation ah. lañ tolloon ba ba egg foofu. non c' est le PAI bi ñu ko créé en mille neuf cent cinquante sept en mu am les élections locales les élections municipales. PA yi gagné Saint-Louis parti Senghor sàcc élection yi à Saint-Louis waa PA révolté wu à Saint-Louis xeex ak ñoom ñu profité ci dissoudre parti bi interdire ko toute activité publique à travers tout le territoire national jàpp ñoom jàpp dirigeants yi ñoom mu Diop ñoom Madické Wade ak ñeneen tëj leen kaso waa PA fexe ba am ñu génn bi ñu rëccee ñu génn dem à Bamako installé wu foofu bi ñu nekkee Bamako foofu la ñu jëlee ay décision parce que ci réew mi la ñu bokk bu ñu demee ba ñoom amatuñu benn moyen bu ñu exprimer woo wax seen xalaat ci li nga xam ni moom moo saxar réew mi mais ils se sont trouvés en droit considérer ni seen devoir moom moo doon user de tous les moyens dont ils disposaient y compris jusqu'au sacrifice de leur vie pour participer à la bataille pour la libération et le développement de notre pays. Mm. C'est dans ces conditions qu'en 1964, non, en euh, fin 63, en fin 1963, mm. Mm-hmm. près d'une trentaine, plus d'une trentaine de Sénégalais venus de, tous les coins du Sénégal, militants du parti, ñoo envoyé leen à faire une formation militaire mm. de guérilla pour revenir au Sénégal affronter l'état néocolonial c'est-à-dire que c'est simplement pour wax la ni mm-hmm. cest à nit ñi en fait dañu yàgg a xeex te euh, tey sax yomb na tey yomb na bo bis boo amee jot da ngay ñëw mu woon la danaa la woon des vestiges de cette lutte danaa la woon la Ronéo mm-hmm. Ronéo machine xaw ma ndax seen a seen xam ngeen lan mooy <laughs> machine Ronéo waaw Renéwo machine la bu doon tirer moom lañ doon tirer moom sa réew. ah oui le journal du parti. d'accord temps yooyu da ngay jël stencil. Hmm. xam naa ne xamu leen ko si stencil. Hmm. moom ngay jël tàppe ci ba pare. Hmm. dugal ko ci Renéwo bi def ci encre di tirer ak sa loxo manuel di tirer di tirer cette machine la police l'a cherchée pendant plus d'une décennie. te te ñaata exemplaire ngeen doon tirer. ah doon nañ tirer bon doon nañ tirer plusieurs centaines. plusieurs centaines. plusieurs centaines le moom Serew doon nañ ci reprise avant le moom Serew y avait la lutte et euh, le parti avait des journaux par exemple en Casamance amoon nañu benn journal bu ñuy wax Casamance Jiito hmm. am euh, euh, Walf fuuta Walf je crois moom moo nekkoon vers la région ay Podor ay Matam ay Waalo y avait ci kanam moom moo nekkoon Belgique la section de Belgique Euh, euh, ci kanam bay y aussi le journal de la section de France non c'est simplement pour pour wax la ni ñun au Sénégal les patriotes sénégalais hmm. bu fekkee Sénégal tollu na fii tey c'est pas faute d'avoir lutté hmm. def nañu maintenant mën nañu taxaw def seetlu pour xam lan moo tax suñu jëf antuwul ba egg fi nga xam ni foofa lañ ko yéene woon hmm. mais jëf moom am na. d'accord léegi lan moo tax euh, yeggu leen ñu taxaw ci laaj boobu. li tax yeggu ngeen fi fi ngeen visé woon comme objectif. bon laaj boobu laaj boobu pour ñu dugg ci ci benn émission day day sori parce que d'abord man rek mënuma taxaw wax ni lii la xëy na mën naa ci am hmm. euh, mën naa ci am yenn gis-gis yi. mën naa ca meen gis gi par exemple man naa la wax ni ba Mamadou Dia biñ ko jàppee en 1962 euh, fekk na parti bi am lu ko jàppaloon ndax taxawaay bu mu amoon ci dissolution au pays ci di solution pays mm. mais man gëm naa et puis quelques années après évidemment toujours mmh. dans la clandestinité mmh. le parti a fait son autocritique pour reconnaître que attitude passive bi mu amoon mm. bi ñuy jàpp Mamadou Dia warul woon mm. dañ ko seetaan parce que waaw dañ ko seetaan mm. malgré li ñu malgré li ñu opposé woon ak moom mm-hmm. waroon nañoo am beneen taxawaay parce que en fait euh, c'était vraiment moom moo doon aile progressiste du pouvoir bi que boo ko comparé woon ak Senghor à l'époque bu fekkoon ni Mamadou Dia moom moo continué mhm. développement Sénégal ak évolution Sénégal dina jël beneen orientation bu ko Senghor yóbbu woon mhm. d'ailleurs loolu mooy expliqué dès que Mamadou Dia génn euh, te avant muy génn d'ailleurs on était en contact déjà avec ses ses camarades mhm. pour nous battre pour sa libération comme pour la libération de tous les détenus politiques moo tax dès mu génn on avec lui l'un des premiers euh, le premier journal pratiquement d'opposition à grand tirage boo amoon écho bu rëy rëy ci réew mi ñu ko doon wax ànd soppi ànd hmm. soppi Mamadou Dia moo fa nekkoon Samba Julde Thiam ak Maguette Thiam ñoom ñoo ko doon diriger c'est ça bien avant ñoom Mamadou Dia di créer MDP le parti leur hmm. leur leur leur propre parti hmm. d'abord loolu bokkoon na ci li taxoon ñu ñu mën a jàpp ni taxawaay bi ñu waroon am pour unir force patriotique yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp pour ñu taxaw jàkkaarloo avec le pouvoir néocolonial de l'époque de Senghor amoon na ci sunu démarche loo ci xamoon ni sooxe na sooxe loolu bokk na ci yenn aspect yoo xam ni mën nañ ko wax notre capacité à rassembler vraiment toutes les forces qui avaient un intérêt patriotique à faire partir le pouvoir de Senghor. d'accord ñu taxaw tuuti ci Mamadou Dia naka la participer ci dissolution parti bi ba nga xam ni xëy na looloo waral ngeen seetaan ko euh, bi euh, Senghor ak nguur di dal ci kawam. bon xam nga à l'époque euh, moom c'est le président du conseil moom moo nekkoon kii bi et puis fesoon na ci ci kaw hostilité boo xam ni manifestement wane woon na ko vis-à-vis du parti. Euh, ba tax euh, bon beaucoup de dirigeants du du du parti dañ ko doon gis comme le principal artisan de la dissolution du parti mais ñun en tant que révolutionnaire par la suite on a compris mais même bu fekkee ni loolu amoon na même bu fekkoon loolu amoon na waruloo nekk point de fixation boo xam ni dinañu tere. am ñun bu jotee taxawaay bi ñu war a am parce que de toute façon une révolution boo ko bëggee def ñu koy defal mooy ñi ngay dundal ak ni ñu mel par exemple tey Sénégal boo ko bëggee changé Sénégal yi ngay nga koy changer donc da nga leen di jàpp ci seen i qualité seen i insuffisance ak seen i défaut donc loolu certainement posture bu mu amoon moom Mamadou Dia parce que il avait son style il avait son style qui n'était pas un style très doux, c'était vraiment un peu radical, un peu trop direct, un peu bon comme ni ko Sénégal yëpp doon gisee quoi. Mm. à l'époque donc euh, bu parti bi révolté wo à Saint-Louis. gis nañ ni moom il était vraiment formel euh, qu'il fallait arrêter ça. Mm. Et cela a conduit à la dissolution du parti et à la rentrée du parti dans la clandestinité. Mhm. alors ah. ñu ñëw ci euh, xeex yi nga xam ni jot ngeen ko engagé en politique xëy na pour moom sa bopp gi mën a yegg fenn tey ndax démb euh, ku ne xam na ne ci clandestinité ngeen doon defee lépp mais teewul yenn saay yi euh, làqatu googu yëpp da ngeen dajeek nguur na donc mhm. yan événement yoo xam ni yu la marqué la wala yu leen marqué la yéen seen jamono ngeen dund te tey bu ngeen gisee fi réew mi toll wala fi jamono toll ngeen ne sunu xeex yakat xëy na ñoo waral ñu yegg si fii waaw xam nga loo loolu c'est très important Fatou parce que gis nga euh, le PAI est né en 1957 hmm. moom mooy euh, l'artisan principal bu accueil de en 58. d'accord c'est-à-dire que li taxoon de Gaulle à la place Protet. mooy place de l'indépendance di wax si waay waay tey di wax si vous voulez l'indépendance prenez-la en fait manifestation boobu c'était essentiellement les membres du PAI. Hmm. ñoom ñoo ñoom ñoo ko préparé. donc mu nekk ngeen def exactement nekk mu nekk une très on a mobilisé. Hmm. on a mobilisé nos camarades on a mobilisé les Sénégalais. Okay. les gens ont mobilisé les travailleurs. ñu génn et l'idée de l'indépendance bu demee ba dox au Sénégal ba egg fu mu egg ci biir ci ci ci ci xelu nit ñi seen conscience c'est grâce en partie en très grande partie au parce que mooy le premier parti bu posez la question de l'indépendance dans des termes très clairs sans équivoque l'indépendance immédiate le PAI dès sa création hmm. et je, je, je vous rappelle en passant que PAI au départ c'était pas un parti sax parce que vingt trois yi nga xam ne ñoom ñoo signé manifeste PAI euh, am na ci ay guinéens am na ci maliens am na ci tchadien hmm. am na ci ay sénégalais. d'accord cest dëkk yooyu yëpp le PAI avait des sections après la lañ ko territorialiser. Hmm. mu am le PAI le, PAI Sénégal donc pour okay. revenir à votre question en 1950 déjà le PAI s'est sing s'est signalé par non seulement sa combativité sa détermination à faire face au régime colonial ces militants, <coughs> beaucoup d'entre eux l'ont subi. Malheureusement, bon, parmi les acteurs euh, principaux de cette période, ci dund am na ci mais ci dirigeant wu de l'époque yi hmm. euh, réellement bareetul mais même bu ñu jëlee de manière euh, de façon plus récente les gens parlent souvent de du 23 juin kii demoon man ci sama gis-gis événement historique la hmm. mais du bu njëkk ci lut yi nga xam ni le peuple sénégalais mënoon mëne na ko bu fekkee ni ces génération war nañu fàttaliku wala boog ñu dégg ko mais mais mille neuf cent soixante huit hmm. c'est c'était loolu du woon yu benn bis beaucoup de dirigeants actuels de la gauche hmm. yoo gis yooyu dégg ñu leen di wax jàppoon nañu leen ci ay ñoom Mamadou Diop Decroix bii ngay dégg mm-hmm. ay ñoom Mbaye Diack bi gaañu mm-hmm. ay ñoom Moussa Kane ay ñoom Ablaye Bathily Ablaye Bathily bi nekk LD nekk euh, LD tey mm-hmm. beaucoup beaucoup beaucoup de dirigeants de la gauche sénégalaise yoo xam ne ñi ngi fi tey ils ont participé à ces grandes batailles et à toutes les batailles antérieures yi nga xam ni amoon nañu mais la question qu'on doit se poser moom mooy ni ñuy wax tey ñoom ñooy les pères de la démocratie ñoom jamono yooyu fan lañ nekkoon ku mel ni Ablaye fan la nekkoon pourquoi du ñu poser wu question yooyu ku mel ni Ablaye Wade durant toute cette période ñu doon jàpp nit ñi ñii nekk en prison di tëdd ay dix ans de prison ñii nekk en exil jusqu'en soixante-quatorze moom muy sobe créer PDS en accord avec Senghor après une rencontre à Addis Abeba ñu waxtaan bu juboo ci mais les gens war nañu poser wala question mais fan la fan la Ablaye Wade nekkoon. yow laaj boobu mënoo ci tontu. waaw non non je je pose. de toute façon. Mhm. nit xam nañ mi ngi woon ci biir parti au pouvoir. Mhm. ah c'est parti bi réprimer. Mhm. di jàpp di tëjaate. mais mi ngi bu fekkee am nga jot dinaa la jox ay lettres. yoo xam ni. sunu camarades yi nekkoon prison. Hmm. ci biir prison bi ñoom ñoo ko bind envoyé ko direction au parti pour wax niñ leen doon traité torture yi ñu leen doon def lié yi ñu doon li ñu leen di leen torturer ak ñi leen doon torturer seen tur. ah oui ko. gel bo bo bo moom laa doon wax ni am na yu ma la bëgg a yónnee bind wax ni. Hmm. nii la bi ñu jàppee nii lii la ñu laaj bi ñu ñëwee ci prison bi tel camarade lañ ko fekk nii la ñu comporté woo. Hmm. non pour de c'est simple donc je te disais il y a eu 68. mai 68 ci ci ci mai 68 ci ci ci yi gën gën a symbolique laa lay jox. Hmm. il y a eu 1988. ba def année blanche. waaw mais justement il y a eu même 1988 mais ñan ñoo mën a bataille yooyu est-ce que est-ce que un Sénégalais mën na bañ a reconnaître ni c'était de moments forts de notre la lutte de notre peuple pour son émancipation. ñan ñoo ko doon mëne te tey yow yaa ngi gis njeexitalu euh, lutte yooyu. waaw mais mais njeexitalu lutte yooyu moo ta gis nga di Senghor di dem di bàyyi Abdou Diouf en fet il avait fini par se convaincre qu'il pouvait plus endiguer la lutte du peuple sénégalais par la répression. Hmm. loolu parce que. man je demeure convaincu ku ko bëgg a partager mën nga ko partager ku bëggul mm. partager mën nga ko def lu mais man gëm naa ni en 1974 mm. bi Senghor di permettre euh, Ablaye Wade mu créer partem mm. multipartisme mu créer mu créé partem c'était c'était essentiellement pour endiguer lutte bi nga xam ni les partis clandestins hmm. ñu ngi ko doon mëne pour suul leen daal. pour suul leen. Hmm, hmm. pour orienter Sénégal yi ci yeneen forme dorganisation comme le PDS. d'accord. et d' la la preuve c' est que par la suite en 1976 ils n'ont pas hésité euh, non oui c'est oui c'est bien en 1976 ils n'ont pas hésité à aller MAJ n'était pas là. Majhemout Diop qui dirigeait le le pouvoir savait bien que Maj jubootul ak parti bi mais dañ dem jëli ko indi ko hmm. di ko yow yaay ah alors que le parti était dans la clandestinité mm. ses dirigeants encore dans les prisons fii au camp et à la prison de de pour te dire en passant les camarades yi nekkoon camp pénal def nañu dix ans. Mhm. ñoom Baara Goudiaby ñoom Charles Guèye ñoom Landing Diédhiou ils sont tous morts ñoom ils ont fait dix ans après avoir été torturés à l'électricité comme pas possible mhm. ay ñu mel ni ñoom Jéeri Gaye Jéeri Gaye bi koy jël di ko yóbbu Moscou pour mu faju ji cër yi dañ doon dañ benn par benn loxo yi d'abord ensuite tànk yi la lamiñ bi tellement les gens l'avaient détruit en prison c'est c'est c'est loolu loolu loolu Fatou moom mooy moom mooy réalité bi au Sénégal te comme lu ma la wax bis boo amee jot dañuy dem dama lay yóbbu ci xam dañ dañu bokk c'est-à-dire que ñoom waxuma la ñoom dañ ci bokk. Mm-hmm. dañ ci bokk dañ ko suivre. te tey voilà des gens qui ne demandent rien. ils considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire et si c'était à recommencer ils l'auraient fait. Mm-hmm. sans rien demander à personne. am na solo le plus total. Mmh. et le désintéressement. d'accord incha allah ah. dinañu ci bàyyi xel. alors ñu ñu wax tuuti ci euh, multipartisme bi nga xam ni euh, Senghor mi ngi ko permettre lay wadd euh, jaaree ci am euh, parti démocratique sénégalais nga ne bëgg-bëgg Senghor ci ginnaaw maanaam lañ ca lees waxul gi mooy dañu bëggoon mm-hmm. suul parti gauche yu mel ni PIT ak PAI ah yooyu nga xam ne ah nekkoon di def lutte clandestine bi lutte clandestine bi autant pour moi di di làqatu mm-hmm. mais amoon influence bu rëy ci population bi alors est-ce que sengoor réussir na kowam bu ñu xoolee tey fi gauche bi toll ak parti yooyu malgré li ñu fi def yëpp daanaka boo xoolee ñoo gën a néew euh, taxawaay bu bu fës en tout cas euh, ci langue politique bi tey. bon réussir koom à coup sûr non. ah oui parce que en fait euh, bul fàtte ni bu ñu yegsee fii ñu yegsi c'est fondamentalement taxawaayu parti de gauche. Hmm. même bu fekkee parfois tey jii li ñu war a peser en termes d'électorat peser wuñu ko mais c'est des c'est des c'est des c'est des partis avec lesquels on compte et c'est ça qui important gis nga ces partis là ñoom ñoo taxaw dans ce pays et ça beaucoup d'événements euh, peuvent l'attester à la suite euh, de multiples tentatives yi ñoom Senghor def même ñoom Abdou pour réduire leen au néant dem nañu ñoom ba xam ni la stabilité de ce pays kenn mënu ko woon assurer sans ces partis hmm. ah amu ci kenn ci ñoom en fait après Senghor ba bien sûr parce que Senghor de kii na euh, multiparti reconnaître Ablaye Wade développer courant de pensée yi trois courants de pensée wax ni je crois le parent le euh, la euh, le courant communiste le courant libéral le socialisme je crois oui j'ai un peu mais mm. reconnaître na Ablaye Wade jox ko courant libéral boo mas mu jóg ni ko le socialisme scientifique jël parti socialiste wax ko yow yaay parti yow yaay e courant social socialiste jël le parti de maître Boubacar Gueye wax ni moom mooy représenter le courant conservateur mais pourtant ñooñu bi mu leen di reconnaître xam na ni y avait des partis dans la clandestinité mm-hmm. te xamoon na ni ces partis là avaient leurs représentants qui étaient en prison mm-hmm. Cheikh Anta voulait créer la rente mais amul lu ñu deful pour empêcher la reconnaissance du RND de Cheikh Anta Diop je me rappelle quand Cheikh Anta intenté un procès contre le pouvoir biñ demee ñu débouté ko à l'époque le tribunal se trouvait après le Dantec mais ci buntu tribunal bi la taxaw ce jour-là les gens étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre Cheikh Anta ñi leen dellu leen seen kër ndax li ñu fa indi woon mat na doom juddu na këy du juddu lañ ko doon wutal ñu ni duñ ko ko jox mais du ko teree dudd c'est comme ça que Cheikh Anta je me rappelle très bien c'est comme hier Cheikh Anta taxaw ci buntu parmi mhm. wu kii bi il tenu ce discours mhm. Mais ce sont ces partis qui ont soulevé les Sénégalais en 1988. C'est incontestable. Mm. parti yooyu. D'accord. Et même maître Abdoulaye Wade bii ñuy wax tey ce sont ces partis qui l'ont encadré ce sont ces partis qui l'ont radicalisé bi muy ñëw fii 2000 il faut jamais oublier. Hmm. Dansokho ak Bathily. ñan ñoo ko jëli. Hmm. ak Landing Savané. Donc, en fait, c'est des partis qui ont, qui parce que la question du pouvoir, mm -hmm. c'est très complexe. Mm-hmm. jël nga pouvoir wala jël c' pas des gens yoo xam ne fondamentalement nekk président moo leen taxoon a jóg. d'accord li leen taxoon a jóg de faire avancer les luttes de notre peuple. Mm-hmm. en aidant les Sénégalais à prendre conscience de leur force mais de la nécessité de prendre en charge leur propre destinée. Mhm. alors doon nañ fi jéem réunification de la gauche ndax dañoo tasaaroo nag lu ñu mën a wax doon nañ fi jéem dajaloo waaye mujjut a sotti euh, tey euh, booy xool avenir u gauche bi fan nga koy séentu ëllëg. fu baax parce que nag aussi boo xoolee fi ñu jógee nga jël PIT jël AJ jël LD jël LCAS. jël IDF mbooloo mi cetera mais nga jël essentiellement PIT AJ LD. Hmm. LD ci PIT la jógee AJ c'était la tendance maoïste de la gauche. Hmm. hostilité adversité waxu même au delà de l' adversité animosité bi amoon seen diggante à l' te tey waa PIT man nañu jóg dem àbb siège LD réunion fa wala waa AJ ñëw àbb siège PIT réunion fa seeni militant di saafonte di ànd di étudier ensemble l'histoire de la gauche dans le cadre du comité du cinquantenaire du PAI approprié wu unanimement le manifeste publié par le PAI en 1957 tu as la question de l'unité avance mm-hmm. te ni muy avancer mooy tax mu durable parce que ce sera dans le terrain de la lutte doy état-major ñooy toog waxtaan wax ni kaay leen ñu ànd ñu ànd mais ay nit ñuy xeex ba daje mm-hmm. bokk fu ñuy jëm loolu mooy li nga xam ni moom mooy lal ànd bi ëllëg mm-hmm. mais moi ma conviction c'est la gauche non seulement elle a de l'avenir mais avenir am ça au fait que les questions yi mu war a résoudre problèmes yi mu war a résoudre c'est des problèmes auxquels le peuple sénégalais est confronté il faut qu'il y des forces pour les régler. waaw mhm. ah, mais gauche moom danañu ànd. danañu ànd d'accord. Ah. léegi euh, démb moo waxal ñu naan tey euh, tey ci sa yaakaar wala ci sa gis-gis Sénégal lan la war a ci histoire politique am ba mën koo doxal xëy na fi yëf yi toll lépp ñoŋul ñu mën caa jubbandikoo waaw lenn bokk na ci moom mooy euh, euh, li ñu ci war a retenir moom mooy euh, d'abord dafa war a wéeru ci ay valeurs c'est très important gis nga boo jëlee gëm ñun xeex nañu ak Senghor dénoncé leen na yëpp wax niñ doon pasar pasare alors réew mi ak yooyu mais boo jëlee dirigeant wu même dirigeant wu pouvoir bi à l'époque dañ doon def ay malvers ay malversation luubal waaw mais am na loo xam ne jomboon nañ mooy lan cest à am am yoo xam ni c'était ostentatoire d'accord gis nga à l'époque da ngay gis ministre bu ñu fal dix ans mais mais xoolal Senghor je donne l'exemple de Senghor mm-hmm. bi mu dee li ñu waxoon lépp ñun la am Normandie ak yooyu mais bi mu dee les gens se sont rendu compte que quand même de rien c'était pas quelqu'un de très très riche mm-hmm. bon il vivait à l'aise mais c'était pas il ne c'était pas un Mobutu mm-hmm. c'était pas un Bokassa de vue de ses de ministre yi amoon nañ ay kër yu rafet mais kër yooyu dañ doon luubal mais c'était dans la durée mm. mais mais en fait depuis l'avènement de de Wade quand il faut le reconnaître mm. da ngay fal tey ëllëg mu am lu la jaaxal. Mm-hmm. ci diir bu gàtt sax. non a plus de il faut il bien il faut bien qu'on compte. qui a que loolu c'est extrêmement c'est pourquoi quand j'entends les gens parler de d'alternance générationnelle il faut en fait nañ nañ nañ def nag nañ tey léegi da ngay. fay alternance générationnelle doyul. non c'est-à-dire que il faut une relève. loolu par exemple bokk na ci une prochaine fois mën nañ ci ci. Mhm. je crois que les partis de gauche par exemple la question de la relève. sur la question de la relève. je pense qu'ils ont un peu échoué. Mmh. comme d'ailleurs du rest pratiquement beaucoup de parti au Sénégal. waaw mais gauche bi la gën a fës foofu moom. daanaka amul ndaw. boo nee gauche rek sa xel ci mag ñi lay dem. Hmm. ñi fi nekkoon ma Mamadou Dia ñi fi nekkoon euh, genre lan moo expliquer situation boobu xa xam nga man quand même je suis né en 1956 que le secrétaire général du PIT actuellement maa ko moom. Ah. kon ñun quand en fait seulement a eu de a eu alternance parce que y a Dansokho. mais comparé ak yeneen parti yi quand bon en moyenne. Mm. en moyenne. Mm. le paradoxe moom mooy les partis de gauche da ngay yow da ngay lutter pour l'émancipation des hommes pour la démocratie. Mm. pour ngeen ko teg daal oui oui pour l'alternance mais. Hmm. y a un par exemple boo jëlee moyenne bu dirigeant de gauche yi doon durer à la tête de leur parti. Hmm. day paradoxal. a ah, ay vingt ans ngay diriger parti. mais tu te bats pour que kuy diriger benn réew def dix ans yow tu es depuis vingt ans ou vingt cinq ans. dans la à la tête de ton parti bon évidemment ça, ça c'est c'est c'est nous mais. Mm. mais c'est c'est c'est des choses qui avec le recul peuvent peuvent sembler assez trucs mais mais je, je voulais dire simplement que li ñu jàng bi daal li ci am solo moom mooy parti. day adosso day adosso ci idéologie muy structure pratique politique bu nit ki. Mhm. idéologie boo xam daf koy insuffler ay valeurs. Mhm. nit ki mën a jëf lu am jariñ mais est-ce que tey parti de gauche yi ñu ngi attirer ndaw ñi. bon bon nous en tout cas au PIT on a tenu parce que moi je m'occupe au PIT je suis membre du bureau politique je m'occupe euh, des de la jeunesse. Mhm. bon c' est vrai que ñi ngi ñi ngi ndaw ñi. Ah. am na ndaw ñoo xam ni ñi ngi ñëw. mais ndaw ñooñu dafa am mais dafa am lu ñu tànn parce que tànn bi moo jafe. Hmm. tànn bi moo jafe parce que xam nga bu fekkee yow da nga bëgg loo am. Hmm. wala nga bëgg loo doon. Hmm. ce sera très difficile nga tànn parti bu mel ni PIT. waaw ah. wala ngay tànn parti bu mel ni LD. dëgg la wala ngay tànn parti bu mel ni foofu sax laa bëggoon na ñëw. waaw waaw ñu ci bari dañ koy def pour wut luñ ci am. waaw waaw teguwul ci ay valeur donc bu fekkente ni tey comme ni nga ko waxee majorité bi noonu lañuy ñuy doxee. <laughs> waaw waaw loolu moom c'est très normal que ngeen bañ a gis ndaw ñi. waaw a gis de toute façon gëm nañu euh, <clears throat> la voie obligée pour. réew mi génn ci coono yu mu nekk ci ay valeur rek de solidarité de justice sociale de paix de progrès ci la mën a taxaw mhm. ndax waaw seetlu nañu tamit gauche bi euh, mhm. tàmbali nañu euh, jëflanteek euh, pouvoir bi ak yeneen Euh, parti yi nga xam ne xëy na bokkuñu sax euh, orientation euh, gis nañu par exemple bi président Macky la ñëwee au pouvoir ñu bëri dañu ànd ak moom avant Macky Sall également ci jamono ab Ablaye wàdd ñoom laa Landing Savané ñoom ñu bëri ñëwoon nañu bokk ci nguur gi ànd ak moom di di gérer alors jaxasoo boobu tamit est-ce que du dévier un peu ñenn ñi ci yoon wi nga xam ni moom la ñu jëloon muy yoonu gauche bu radical bi vraiment. xam xam nga yoonu parce que àddina aussi day dox. Hmm. xam nga pare o jëlee parti mel ni PIT PA yi. wax naa la li ñu envisagé woon def à l'époque notre stratégie c'était une stratégie insurrectionnelle parce que amuñu woon possibilité def leen xeex rek lañu mën def hmm. pour bokk mais aujourd'hui àddina dafa changé c'est-à-dire que tey boo jëlee ay gànnaayu au Sénégal ne defar Sénégal mm-hmm. mais mën nga ko toj réew yi ay armes tone yëpp gis nañu fan la ñu mujj donc cest du ñun ñoo changé ou bien boog addina moo changé mm-hmm. ni mu doon doxe avant y a tu avais l'Union soviétique tu avais les États-Unis mm-hmm. tu avais les deux camps loolu moom fekke ngeen ko tu avais le bloc socialiste révolutionnaire qui est le camp de l'Occident de l'impérialisme am na foo xam ne mënoon nga fa wéeru hmm. boo bëggee def yenn tey loolu amatul àddina hmm. bi donc contexte yi ñoo changé waaw contexte yi ñoo changé te réew mu ne xam nga ànd du ci nit ñi di xalaate yow man mën naa jëm Saint-Louis yow nga jëm Thiès ñu jóge Dakar mais man nañu mën nañu ànd ba Thiès. waaw. yow Thiès ngay yem. Mhm. man mu continuer. dana am ñuy yem Louga. Mhm. dana am ñu dem ba Saint-Louis. Mhm. mais li nga xam ni ñoo ko bokk. man koo ànd def ko mu doon suñu njariñ ñun ñëpp. loolu mënuñu yegg seen. dañu war a ànd def ko. xam man euh, ñun booy féetee gauche bi jeune d'ailleurs ñoo ñoo fal Ablaye Wade parce que Ablaye Wade bàyyi woon na gauche bee ko jëli mhm. ñoo ko jëlee indi booy jëlee Macky aussi mais la gauche mais par exemple booy jëlee un gars comme Dansokho mhm. avec qui j'ai eu un de, de, de près de quarante ans mhm. lu mu liggéey ci rassembler les forces pour le changement au Sénégal amul benn dirigeant bu ko fi c'était un dirigeant c'était un dirigeant de la gauche këram moo doon këram moo doon siège quasiment coalition yi significative yëpp kër Amath lañ doon réunir moo doon dem gisi nit ñi même les gens avec qui il avait des désaccords profonds mais pour les nécessités de la lutte il n'hésitait pas sol daalam dem gis leen wax moom pour ñu ànd xeex pourtant kenn mës ko ci dégg mu xëccoo ci dara wala mu jëm lépp lu mu ci doon dañu seet na ko te yelloo na ko te bu ko doonee dina am njëriñ ñu def ko ko mais kenn mu d'ailleurs gouvernement yi mbokk yëpp da dañ ko ci dàq sauf bu Macky Sall parce que daf il donnait son opinion. Mm-hmm. et c'était un de indépendant. kenn mënu ko tënk donc non non kenn mënu ko tënk comme PIT kenn mënu ko tënk donc ànd bi nit ñi niñ koy gis xam nga mag yi tey par exemple ñun mën nañu wax ni faluñu ko parce que woteeluñu ko au premier mm-hmm. xam nga on était pour l'application des conclusions des assises. Mm-hmm. mais candidat yi nga xam ni ñoom ñoo porté woon programme boobu gagné wu ñu élection yi. Mhm. moo doon. Moustapha Niass euh, Moustapha Niass ak Tanor Dieng. Tanor Dieng même Moustapha ak Tanor mhm. moo gagné. pour autant que ñu gëm ni euh, le peuple est souverain est-ce que mën nañu wax ni kon nañu appliquer programme yi ñu ñu gagné. Mhm. xam nga question qu'il faut oser se poser mhm. c'est des questions qu'il faut oser se poser parfois di nga ànd ak benn ka xam nga Ablaye Wade bi ñu koy voté euh, dans ce ko dañ ko laaj mu ni ce n'est ni le candidat idéal ni le candidat de notre idéal mais c'est le candidat des circonstances actuelles. 2012 euh, 2000 ah. 2000 plutôt. xam nga ñun buñ doon tànn. Mm-hmm. candidat peut du moom la ñuy tànn mais nag aussi bëgguñu nax suñu bopp. Mm-hmm. à l'époque am nañu daason mais bu xam nañ bu ñu ta dafuñu bu ñu tànnee. du ngeen dem. waaw ah. mais Wade buñ ko tànnee mën na fi jëlee ñu fi nekkoon. Mm-hmm. cest à c'est simple xam nga. réalité mhm. mais réalité boo ko bëggee changer da ngay reconnaître d'abord ni am na. dëgg la da njëkk a reconnaître ni am na même bu fekkee c'est pas favorable pour yow. Mhm. da ngay reconnaître ni réalité bi am na. ensuite nous pensons que le tournant de 1989 bi bi bi événement wu naar yi amee ba ñu génnee suñu déclaration xam tous les partis y compris de gauche ñu dinañu saaga ñu c'est quand Amath parlait de la nécessité d'un large d'une politique de large rassemblement et l'impérieuse nécessité de civiliser les rapports politiques ci la ñu demee rencontrer le parti socialiste ñëpp dal ci sunu kaw mais après ñu daloon ci sunu kaw ñëpp rencontré nañ parti socialiste parce que ci jamono jooju xamoon nañ ni loolu moo mënoon sauver Sénégal parce que dans ce cas il dire que quand on tamine un malade tu es médecin si tu ne tu n'as droit de l'achever ou d'aggraver sa maladie c'était ça le rapport qu'on a toujours eu avec le pays on avec Macky comme on a été avec euh, Ablaye Wade comme on été avec Abdou Diouf amul dara loo xam ni ki sunu jëf ak ki sunu pratique ak ki sunu dundin bokk na ci ñun amul kenn ku Maguette Thiam di dirige demal këram nga Liberté 6 këru sikaab la ordinaire boo xam ni dara transfert wu ci amul benn dirigeant wu PIT man nii di wax ak yow j'étais dans le cabinet de Dansokho ba bi nii man j'étais j'étais dans son cabinet aw kër aw kër donc en fait li ñu gëmoon dañu gëm li ñu doon jéem moom la ñuy li ñu bëggoon moom la ñu bëgg defin wi nag il foog ñu changer ko hmm. defin moom il faut ñu changer ko moom moo changé. voilà. alors booy xool tey événement bu mel ni 23 juin ñi ngi ko doon fàttaliku ayu bés bi euh, ñu ñu nekk 23 juin euh, tey dañu ko def lu rëy rëy mais yéen ñi fekkee démba ndax 23 juin am na dayo bi mu am euh, ci gëtu ñeneen ñi. maa bu rëy parce que damay wax ni euh, am na boo leen yeewoon ci bàmmeel euh, génne leen ñu xool loolu bu ñu tëddaatee dañuy tàlli. ndax la parce que ah, parce que seen àddina yëpp dañ ko consacré woon ci fexe. ba Sénégalais yi mel ni ñu meloon 23 juin moom mooy bañ mu njàmm bañ noteel bañ bugul dëgg ba pare am fit ak mot gu leen mën a may ñu xeex ko hmm. man je avoue que ce jour-là j'ai pensé à beaucoup de nos camarades qui nous hmm. mais en même temps je me suis que c'est parce que ñoom posé nañu acte yooyu ñu posé woon démb. Mhm. ba ñu ci bari tax tax tax nekkatuñu fi. Mhm. moo tax tey nit ñu jóge nii. cest à noppi. bi mhm. wax jafee dañ doon wax. au prix comme je l'ai dit de leur liberté de leur de leur vie et tout ce qui cher. et ils étaient seuls à le ñu leen ci fekk si di leen ci fekk si ba kenn mënatul tere ko wax ba kenn mënatul tere ko jëf mais c'est des choses pour le comprendre il faut comprendre not histoire politique xool ñooñu comme lu ma la wax boo dinaa fexe nga jot yenn documents yi xool ko lii ko gis li ñooñu daj mm-hmm. cest à parce que loolu rek moo la mën a na leen daal lu mm-hmm. bari waaw waaw mës mm. na ma na sekk waxtaan ak euh, ñaari soxna yi fi ndem si yàlla Maba Guissé Ba yi. waaw très bien Baba. ba Baba Guissé Baxaw Seck. Mm-hmm. ñoom Baba ñoom xaw waaw mais keroog wax nañu yoo xam ne yow en fait génération bu tey mënuñu imaginer. ne nit daanaka jaral loolu waaw non non c'est pourquoi quand je mm. vois certains jeunes. leaders parlaient avec une certaine arrogance mhm. à l'endroit de toute la classe politique. Je dis qu'ils ne savent pas que la pire des vices, c'est l'ingratitude. Mhm. des gens qui méritent la reconnaissance du Sénégal et des Sénégalais. Mhm. Parce qu'ils n'ont rien eu et ils n'ont rien demandé. Et ils ont tout sacrifié. L'indrègle de c'est d'être reconnaissant. C'est ça. gis nga gis boo dee évaluer nit mhm. même ki trahir mhm. boo effacé jëfi debam mhm. tu es injuste je vous assure que lii nit gis nga quand tu vas en prison aujourd'hui nga seeti benn détenu nga gis condition yi mu nekk da ngay da ngay yéemu ci yàlla par rapport ñële condition yi ñu nekk d' abord dañ la doon jàpp kenn du xam ne jàpp nañ la sax. ah oui. te am ah, na y' avait pas les réseaux sociaux. Hmm. waaw daawul siiw. Euh, y' parti unique. Hmm. buñ la jàppee ñu bari sax duñ ñemee ñëw seet si la. dëgg la. c' était ça la réalité buñ la jàppee kenn du ñëw ñemee ñëw seet la mais dinaa je je te le promets je le ferai naa la jox les lettres de prison des camarades nga lire ko. bu ñu la jàppee kenn du ñëw seet si la c'est pourquoi quand euh, par exemple les acteurs de cette période dégg ñuy wax la démocratie a reculé hmm. opinion la boo xam pour ñu partager ko day jafe hmm. parce que ñoom li ñu dund xeex bi ñu xeex egg si fii on peut dire qu'il y a des choses antidémocratiques qu'il faut dénoncer mais quand tu dis que la démocratie a reculé c'est par rapport à quoi fan lañ jóge parce que yow jàpp nañu te boo seetee ñi ñuy jàpp bay wax ni la ñuy wax ni laa démocratie a reculé ñoom ñoo doon jàppaate dem. Mhm. ñoom ñoo doon jàppaati. réfléchis bien da nga bu baax ci li ma la fan. Mhm. ñi ñi ñi ñi ñi tax ñuy wax la démocratie a reculé parce que dañu leen jàpp ñoom jàppaati dem. mais imagine imaginel benn seul instant fi réew bi toll tey d'ailleurs démb euh, il y a trois jours benn vieux daf ma doon wax mu ma réew mi fi mu toll moom la ñuy wax réew mu tas lu neex waay wax lu neex waay def mu ni ma ñi xam ñépp noppi na hmm. ñi xamul nekk ci rajo yi di mbel mbel mu ma mais réew bu eggee foofu ba nga xam ni mab rek moo des ma ne ko ah, mu ne ma kuy yëngatu yaa tooñ. Hmm. ñëpp war a ni teg. waaw en fait imaginez y des choses extraordinaires man tey par exemple je exemple bu ndaw laa lay jox boo xam ni dama koy xalifa Sall on n'a jamais partagé le même parti je l'ai combattu hmm. de toutes mes forces ok il était général de notre organisation de jeunesse il était secrétaire général des jeunes sociales. Mmh. frotté sur le plan national comme sur le plan international. Okay. mais tey man a Khalifa bu ñu dajee da ngay wax non c'est pas possible. Mm. parce que am na am na loo xam suru ko franchir ma ko. maanaam amoon ngeen retenu ci lépp. non dama toog nañu. Mm. élection bureau municipal. bureau municipal mm. Grand Yoff mm-hmm. ñu élire maire mm. dans le cadre de la coalition ñu ni premier adjoint Khalifa jóg taxaw wax ni kenn du ko voté c'est Pape Mbaye pourtant il sait que je ne voterai pas pour lui mm. suis du PIT que je me toujours mais c'est-à-dire que même les mm-hmm. nit ñi quand ci ay valeurs y avait une qualité dans les relations humaines mais imaginez euh, Fatou léegi yow ngay da ngay jël sa da ngay photo di filmer sa bopp jël nit da nga koy saaga sa hmm. benn argumentation saaga rek quoi hmm. après nga posté ko et tu as des responsables qui partagent ça hmm. ah comprendre yow par exemple je peux pas du tout admettre nga jël loolu di ma ko que nga xool ko je ne sais pas yow nga jël ko di ko diffuser mais beneen exemple bu ma la mën a jox mais jëlal émission bi ngay def nii yow tànk yaa ngi koy def mhm. man nga bañ a siiw mhm. demal nga laaj den journaliste ñan lañ lay wax ñooy ñooy journaliste mhm. mais pourquoi voilà des des des des donc euh, pour devenir ci li nga waxoon moi je pense que li ñu war a def moom mooy dellu ci jàngale hmm. dans les partis école de parti yi ñëwaat waaw école de parti yu ñëwaat ñu jàngal xale yi inculquer leen ay valeur valeur yooyu nekk continuité valeur yi ñu leen di jàngal ci kër yi di leen ko jàngal ci école yi mais politique bi tey valeur néew na ci de ah waaw mais bon voilà le problème. Hmm. c' est pourquoi gis nga damay wax nii benn euh, sam benn xarit bu nekk fii kenn kay relevé. Hmm. mu ni moom euh, vraiment Sénégal pour mu defaru dana jafe ne ko xam nga lu tax mu ne ah mën ko yow fii nga toog. <laughs> ay nit di la fi fekk toujours ma toog yow di waxtaan ñu ñëw di la dénk seen xaalis. Hmm. xam nga ñooñu wóolu nañ la. mu ne ma waaw ma ne ko mais boo présenté woo élection duñ la voté. mu ne ma la wóolu. te ki ñu wóolu gëm nañ ni ñoom li ñu bëgg mu def ko ci xaalis du ko ci def mm. donc duñ la voté la ñi ñuy voté ñëpp boo seetee xam nañ leen mm-hmm. xam nañu li ñu def xam nañu fi ñu jaar mm-hmm. gisaguma ku jub loxoom set mu élection au Sénégal am plus de un pour cent. kon daal dafa mel ni système boo xam ne dañ koy. continuer non non mais xam nga léegi ceeb bi ñuy séddale. Hmm. registre unique bi xam nga dañu wax ni ñu am bourse familiale. dañ exactement hmm. kenn du leen recensé. Hmm. mais bi ñu xoolee gis nañ am na ay chef de quartier yu am plus de dix personnes bourse familiale seen biir kër. essentiel lu chef de quartier yi d'ailleurs au Sénégal. doy na waar. waaw mais ñooñu boo leen dajalee ñëw di leen wax ministre bi day sàcc est-ce que loolu dina leen tax a xeex parce que ñoom lan lañ def. <laughs> waaw ñoom de kuy jubal sax bu ñëwee du leen arrangé. mais voilà jërëjëf mbay xam naa fi la ñu ci waxtaan wi d'accord d'accord euh, Fatou merci waaw waxtaan wi neex na am na solo macha allah bari na njàngale yoon yemul ci benn beneen yoon incha allah ñu dikk ak yow ci beneen pàcc ndax itam ku fekkee dem nga macha allah na la fi yàlla bàyyi ba ci kanama kanam fàttali ne yow euh, yaa ngi bokk ci PIT euh, di fa milité depuis fin 1975 tey nga nekk adjoint au maire de Grand Yoff ñu lay gërëm bu baax Pape mbay gërëm Léon Paul Mendy mi nga xam ne itam xamante bi ci moom la jaar di gërëm auditeur yi doon déglu yëpp euh, di leen dig daje dimanche incha allah gërëm jaawo jàllo mi fare woon ci machine bi bu dee dafa am loo ci bëgg a dolli très rapidement non non jërëjëf rek xanaa mm. gërëm leen sant leen mm. di leen encouragé yàlla jërëjëf yow itam ñu ngi lay sant di la gërëm Demb ak Tay la woon ci réew mi FM Fatou Thiam Ngom ne woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm